borom bu tedd bi julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax jërëjëf jërëjëf sëñ Touba waxaat jërëjëf sëñ Touba ni jaraw lakk maam Cheikh Ibrahima Fall nuyu sëñ Mountakha Mbacké di ñaan yàlla na fi yàgg te maa ngi koy sant ñaan yi ma ñaanal yépp gis naa ko maa ngi sant kilifa diine yi nekk Sénégal yépp bàyyi leen ma ma tudd si sëñ Mbaye Sy Mansour ni ko na ma ko tasaareel si kilifa diine yépp yàlla def ba ma doonee taaliba sëñ Touba ñépp xajoo ma kër goo dem ma am ko wàccuwaay kooku nag wax dëgg yàlla mbiru sëñ Touba la maa ngi nuyu sama ko organisé barki démb si guddi ngeen ñëw sama kër ni ma il faut ñu def lu rëy duñu yem ci inauguration man leen ay ca te loolu kañ la woon àllarba si guddi alxames ak àjjuma ngeen woote ñépp wuyu leen kon yàlla dimbali nañu si barke Cheikh Ahmad Bamba ñu nekk si xolu nit ñi jërë ngeen jëf. responsable yi bàyyi ma kenn. ñëpp maa ngi leen di maa ngi leen di sant di leen gërëm dama bëgg ni leen nangu naa investiture bi ndax Sénégal dama bëgg yorin wu rafet ñu yor ko yorin wu rafet woo xam ni dana wuuteeg ni ko président Macky Sall yore li may jëkk def dëkk bii nga xam ni foo ko teg rek même soo ko tegee si wàllu république lu nu def Dakar wax na nu def lu mu tuuti tuuti deux tiers yi bëgg naa régler problème bu assainissement bi nekk Touba bëgg naa régler problème bu ndox bi nekk Touba sama bëgg-bëgg mooy ma def Touba lu benn président mosul def def ko def ko si Mbàkke def ko si Jurbel ndax Jurbel ñépp xam ni dëkk bu am solo fu sëriñ bu mag bi nekk fukki at ak juróom foofu wax nañ ko fonk te Jurbel Mbàkke Tuuba coow li coow li Macky Sall defu fi dara Ila Touba bi mu tiitaroo Ila Touba commerce la kenn defu ko may ko waa Touba ku fi jaar da ngay fay te demul Touba lu wane ni fii lay ñëw di wax Ila Touba waaye ba mu demee Tivaouane dafa ne autoroute bu bees bi kon ngeen xam ne autoroute bi ñu nag waa Sénégal yépp ko bokk Touba su tawee taw bu ndaw rek mu taa Touba ndox jafe na fi am na ñoo xam ne ba fii lu toll ñu ngi duyu ndox danoo fanaane di wut ndox ma ko wax di ni dama xoolaat mooy président Macky Sall dafa war sëñ Touba. fii la doon ay loxoom di wax ni murit laa danaa def danaa def deful dara ku bëgg nag bëgg lu ko neex di ko wax li nga def lu mu def li nekk dama bëgg dajale journaliste yi ñu ànd visité ko d'accord naa mu yónnee ma ku ko neex ñu dem visiter li mu def daa ngeen gis ni defu dara. na dem na dem na dem. na dikk ma dikkee na dikk. ma dikk. mooy dina defar Sénégal ba Sénégal yëpp. Sénégal yëpp gis seen bopp. waat naa fii nga xam ni jege na Touba. te mu wóor ma ni ma du fi waat loo xam ni mukk defuma ko man du ma wor Sénégal man du ma jëriñoo Sénégal man du ma pàccoo dafa jël Sénégal jox réew ba Sénégalais yi am dara man li ma gëm mooy un Sénégal d'abord pour les Sénégalais ensuite pour les autres Macky Sall dafa ni un Sénégalais de tous pour tous moo tax gisuñu tous gisuñu tous nit ñaa ngi xiif nit ñaa ngi sonn xale liggéey may seen soxla nan laa koy faje dama koy def la maam Cheikh Ibrahima Fall digle man duma may jën nit ki dama koy jàngal métier dama koy jàngal nu mu nappee ku ñax jariñu ñun ñax jariñu la nu xam xamuñu tàllal loxo te président Macky dafa jël vingt-cinq mille di ko séddale ay nit di ko jox benn famille nee naa leen ban cinq mille mënul xont xar si weer lii mooy wane ni kii wax dëgg yàlla dafa néeg te loxo bi dafa tuuti xol bi tuuti ñu nag taalibe seen Tuubaa yoo xam ni gëm na ni xéewal yi seen Tuubaa daf ñu koy fàggul moo tax lu ñëw ñu bokk ak waa Sénégal maa ngi wax aussi premier ministre dégg naa muy wax ay libéraux sauvages loolu wax ju ñaaw la warul génn ci kàddu premier ministre bu leen fàtte ni man waxoon naa leen ni du ngeen dégg ma wax wax ju ñaaw du ngeen dégg ma tontu ko lenn rek laa koy wax mooy Ablaye Wade bu yiw moomu Ablaye Wade bu baax moomu Ablaye Wade taalibe Sëñ Tuubaa ku mu yar Abdoulaye Wade taaliba Sëñ Tuubaa ku mu yar doo doon libéré sauvage Abdoulaye Wade ay nit ñu yiw ay nit ñu baax ay nit ñu bigg bëgg seen réew la yar jëmb jooju nag sama bëgg-bëgg yépp mooy ñaan ndam yàlla may ma ma teral ka teraanga boo xam ni kenn xalaatu ko Ablaye Wade dafa sonnal Sénégal Ablaye Wade lépp daf ko jox Sénégal lu Mandela am Afrique du Sud Ablaye Wade war man am mel noonu Sénégal te incha allah man mii maa koy jox. maa ngi woo soowee soowee Sénégal ma dikkal dikkal dikkal soowee soowee Sénégal frères libéraux yi comme résultat yi ñi ngi génn man nag maa ngi sant waa Mbacké waa Touba Touba awma seen fay parrainage yi ñëpp gis ni ci 45 jours Touba jox nañ ma 156 000 parrains awma seen fay te loolu ay jàmbaar yu rëy waxuma ñi nga xam ne dañu àndal si euh, àndal man waaye am na ñoo xam ne dañu ñëw wàll si ma sonn si lool may leen ma ma lim si benn jàmbaar mooy sëriñ moo dugg sa jàng gannaaw loolu may leen ma ma lim ñaari soxna yoo xam ni wax naa leen lim ngir njabootu sëñ Tuubaa ngir seen taxawaay soxna maam Xari Mbàkke soxna maam Faati soxna Bintu Diop soxna Mumi Jaxate Aziz Gaye ak bureau bi yëpp maa ngi leen wax sant leen ma waa Mbàkke sant ma waa Touba ngeen xam ni sëñ Modou Kara Cheikh Massamba nga ànd ak man yàlla na mën a sëñ Massamba fayal loolu moo aussi mooy sama digganteeg ku lim juum sa sëñ Cheikh solution sama digganteeg sëriñ Dan mu sëñ Sama Samba ak ñi fi nekk yëpp sëñ Gala sàll ak ñi fi nekk yëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm étudiants yi aw ma seen fay yéen a ma jëkk investir ah, ah. comité bi ma seen fay li si des dama bëgg wax sama frère libéraux yi fii laa leen di lancé yàgg naa leen wax ni sëñ Cheikh du ma porter plainte wax naa leen ni man maay solution bi képp koo xam ni rejeté nañu sa parrainage ñëwal jàppale ma nu jële fi Macky ndax man lu may doxal mooy programme libéral bu président Ablaye Wade libéral social ñëpp maa ngi leen di tàllal loxo bàyyiwuma sama benn frère libéraux man maay ki nga xam ni ëllëg jaay doole dana gëj senegaal ñi ñu neewal doole di Karim wàdd di Khalifa sàll ak ku mu doon danaa faj seen soxla Sénégal dana fexe ba justice am fi kenn dootu fi jaay doole kenn danaa fexe ba Sénégal yi gis seen bopp jigéen ñi ndaw ñi danaa jël si budget national bi danaa jël si ressources yi nga xam dafa jóge si petrol bi danaa ci jël lu takku fexe ba jagleel ka ndaw ñi ak jigéen ñi ndaw ñi dama leen di jàngal métier dama leen di former dama leen di jox lu nu defee seen lu nu mën liggéeyee jigéen ñi dama tàyyi si comp bi nga xam ni Macky Sall leen koy compal man dama leen di tibal microfinance mooy compal te jigéenu Sénégal am na nu jom rawatina jigéenu Touba jigéenu Mbacké dama leen di defal fi ay projet il faut que am industrie ba ñëpp man fi liggéey il faut que am unité de transformation Touba dafa yelloo lépp ñee yeewoo Touba gannaaw Dakar yeewoowunu fenn li am Touba amul fenn si mbooloo ak si économie kon wax nañu jàppale Touba ba Touba nit ba képp ko xam dañ fi dëkk daa war man liggéey daa war man daan sa doole loolu sama bëgg-bëgg la lenn moo si des mooy wax immigré yi man maa ki xam ni maa jëkk fii lay wax parce que waa Mbàkke Touba Diourbel dëkku immigré la man maa jëkk créer le salon de l'habitat fexe ba immigré bi nekk am kër loolu nag am na yeneen xam-xam yu ma si am daanu jël ay terrain yoo xam ne dañ koy viabiliser nga terrain yi soo ko viabiliser 30 pour cent si coût logement bi dafay wàññeeku ma jox ko immigré yi wut banque boo xam daf leen di lebal xaalis su leen lebalee xaalis ñu am ay kër danaa leen jàppale aussi si ay projet de retour ndax nu mën ñibbisi Sénégal ku bëgg ñibbisi nga ñibbisi ñun xam nañu xam-xam bu wóor bu nu jëmale man ko jëmale kanam si réew mi na nag gars yi nga xam ni danoo danoo nelaw ba tiit si nelaw rek ni jël naa décision nangam Macky Sall ak nitam danoo nelaw ba tiit si nelaw rek ni fii laa jëmale Sénégal moo tax coono bi bari amuñu vi amuñu vision je voudrais d'abord saluer sëñ Mountakha Mbacké et lui dire merci.